fépp foo romb ci mbedd Kaolack yi ci quartier yi dafa fees tell ndox li ko waral nag mooy taw bu yàgg lañu ne nemmeeku ci diwaan quartier yu bëri nag daanaka inondé fépp foo romb rek kër yi fees tell ak ndox mbedd yi taa sareet yi moom daanaka sax dañuy xuus pour jàll xale yi nekk ci biir ndox bi di foo quartier Maloum Ndorong Sam Medina Baye Coofak Xaawoon ak Xaaxum mbedd si baree bari daanaka dafa taa fees dell li ko waral nag mooy taw bu yàgg bi nga xam ni daal nañ koy nemmeeku fii si Kaolack image yi boo ko gisee dafay wane ne mbedd yi daal nay taa ñu bari ci askan wi kon fi mu ne nii a jafe-jafe la am ndax ñu nekk si période bi nga xam ni mooy gàmmuwaat ñu si bari nag jafe-jafe la ñu am ngir dalalaat seeni gan si biir kër yi bu ngeen xoolee kàddu yi nga xam ne askan wi yeewa maalum yëkkati nañ ko dafay firndeel que ni ñu ngi si jafe-jafe koo xam ni ñu ngi koy jànkonteel ñu teew leen ñu ñëwaat si Sénégal 7. man la Mamadou Sarr ñu may wax ñu may sama surnoo di tuxuñ ñu ngi dëkkee fii ci quartier Maloum pour la énième fois avec l'ancien résime ñëw nañu wax lii chaque fois bu tawee ndox mi suñu kër yëpp inondé war nañu au moins defal ñu benn benn canalisation bu ndaw sax ndox mi di fi jaar. encore tamit euh, problème ONAS bi tamit amul noor amul nawet day day bal rek bu tawee nag lay gën a garaw noor bi tamit day temps day jékki-jékki bal jaarati fi parce que ñun ci côté ba ñoo gën a wàcc quoi ci côté basse bi lañ gën a wàcc euh, fi ñu nekk moo gën a wàcc ndox mi chaque fois fi lay ñëw continuer doog a dem ci taliba pour verser yi kër yëpp dañuy inondé fi ni nii dañoo ñëpp nekk di ŋàcc maa ngi nii ak sama peel ah, liggéey mënu ma liggéey ndax lii waaw léegi nag ñu ngi ciy ñaan avec euh, euh, le nouveau régime la au moins ñu jëm ñu xool canalisation yi fii surtout euh, au niveau de Ndorong mi xam ne ñun sur côté Maloum bi ndox mi yëpp fi lay déverser di dem waaw léegi nag boo demee ñun bon bu fekkee ne ne na ce que benn canal bu ndaw sax ñu defal ñu ko pour que ndoxu eau de pluie bu ñëwee mun a dem encore tamit ñu dimbale ci ONAS bi tamit parce que bu bi jeexee tamit noor bi ONAS bi nii lay bale sunu égout yëpp. suñu égout suñu égout yi fii yëpp amul benn kubéer amul dara même buñ ko tëjee sax day day bal parce que euh, diamètre bi ci def euh, euh, tuyau yi dañoo tuuti dañ ko war a tulli defaraat ko parce que diamètre boo xam ne moo tull je pense ay cent soixante gi ah du dara waaw et puis nag ñu yokk ko yóbbu ko côté siti millionnaire def ko extension wo ko defee ndox mi bu ñëwee noor ak nawet yëpp sa waay day day coulé fi waaw ñun daal loolu la ñaan avec le nouveau régime la ah ñu xool nuñ ko ñu jàppale. asalaamaaleykum man la Marie Ndiaye maa ngi dëkk Kër Maalum ñun nag sonn nañ sonn nañ lool nawet bi bu ñëwee fii ndox mi yëpp fi ah côté Ndorong Ocass ndox mi yëpp fi lay jaar ñu ngi nii suñ kër yaa ngi fees dell suñ néeg yaa ngi fees dell xamuñ nu ñuy def ona ab bu ndox mi jeexee ONAS sonal ñu suñ ONAS baa ngi nii ONAS bi ndox mi def fii wal ay 7 mois 8 mois. ñu nekk ak yooyeeg salte beek xasawaay bi noonu daal la ñuy nekkee chaque année chaque jour chaque année du mën a chaque jour chaque mois noon la nekkee ku ñu mën a dimbale daal moom ñu jël sonn nañ lool sonn nañ lool surtout ONAS bi nag moom ONAS bi moom moo ñu gën a sonal moo ñu gën a sonal moo ñu gën a sonal bu feesee suñ suñ duus si rafule ñëw ci suñ néegi suñ mbedd mi suñ ëtt yi duñu xam fu ñuy toog ñu xam fu ñuy jaar ku ñu mën a dimbale ci ONAS bi daal moom moo ñu gënal loolu daal moom mooy moo ñu soxaloon. maa leen di nuyu di leen siyaaree ñëpp man la bàcc jaar dëkk ci koñ bi fii nii Kër Malo oui. waaw yi moom métti na ko depuis depuis huit heures si suba ba léegi ñu ngi ci ndox mi yaa ngi gis koñ bi mu ngi fees dell ak ndox. waaw métti na trop quoi vraiment tey moom journée bu metti la si ñun ñu dëkk si koñ bi fii nii parce que koñ bi mu ngi fees dell ndox même suñ kër yi sax ñu ngi fees dell ndox ak gàmm gi ak gan yi nga xam ne ñu si bëri ñu beeguñ moom affaire yi métti na trop vraiment. waaw xanaa ñu ñu defal ñu ay ay canalisation yu baax rek waaw parce que koñ bi moom amul benn canalisation en plus tamit ONAS bi tamit ONAS bi li muy retourné si ndox bëri na trop trop trop trop ONAS bi moom vraiment Euh, gisuñ si suñ bopp quoi suñ ñi ñu dëkk si koñ bi nii parce que orange bi au lieu que mu yóbbu ndox bi mais dañuy andil ay ndox suñu biir salle de bain yi wala suñu biir kër yi métti na trop ak orange bi vraiment. waaw autorité xanaa ñu wàcc ci le terrain rek dimbale population yi parce que sonn nañ trop vraiment buñ tawee dootuñ xamante lu ñuy def xoolal ci suba ba léegi ñu ngi ci ndox mi pour mu génn suñ kër yi gan yi mën a nekk si jàmm mais booba léegi daal ñu ngi ci quoi nañu autorité yi dimbale quoi di euh, solliciter monsieur le maire Serigne Boub quoi vraiment moom mu ngi liggéey mais na gën a gëstuwaat population Kaolack quoi bi si euh, ndox mi quoi parce que ndox mi sonal nañu trop vraiment di leen sant di leen gërëm waa Sénégal 7 merci beaucoup waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Salif John Mané maa ngi dëkk Ndorong Kaolack euh, quartier bu ñuy wax tamit quartier Kër Maalum waaw. waaw bu ne ci wàllu inondation bi comme nu ko ñëpp constaté parce que taw moom dafa nekk loo xam ne ngëneel la ngëneel lu ñëpp di ñaan la te jii mun mënuñoo toog ne yàlla bu mu taw ak yooyu mais bam tawee nag comme que taw moom mbirum suñu borom la daam am loo xam ne mbirum nit la gannaaw ba mu tawee ba pare mooy lu jëm ci wàllu assainissement te ku xam Kaolack ñëpp dañ koy bàkkoo naan dëkk bu tilim la ak yooyu. waaye daal lu ñu si mën a wax mooy ñun waa Kaolack moom inondation bi sonal na leen trop trop inondation moom buñ ko waxee rek lu ñu ciy wax mooy wàllu canalisation kon nag ñun ñu ngi ciy profité ci situation yu nekk fii fait appel aux autorités premièrement aux autorités locales ñoom ñu jouer le rôle de relais au niveau de l' état central ñoom ñu xamal leen situation yu nekk Kaolack bu ko defee nag comme nag c' est un nouveau régime ñoom ñu bàyyi xel bu baax a baax ne kaw nag Kaolack nag nekk na dëkk boo xam ne dafa manqué assainissement manqué na assainissement parce que tey jii taw bu ndaw rek day ñëw rek dëkk bi yëpp fees kon loolu noonu ñoom ñu toog nii ñu ngi leen si lancé appel ñu góorgóorlu ba mën a taxaw ne maam seen programme prioritaire yi Kaolack bokk ci parce que ñun na waa Kaolack quartier Kër Maalum situation bi xaw na métti trop si ñun dañ koy dund nag pratiquement tout au long de l' année parce que buñ jugee si inondation bu nawet bi jeexee mbirum ONAS yi day ñëw reposer waat te kuy wax ONAS wax ballu wax ndoxu foos salté te tamit ñëpp xam nañ ne maanaam cas de paludisme yi nu mel Kaolack c'est une zone boo xam ne tey jii mënuñu koo ooy zone rouge waaye dañuy wax ne phénomène paludisme bi mu ngi fi ba tey kon loolu noonu yëpp ce sont des solution yoo xam ne euh, gouvernement bi à commencer par l'état central mu ñëw def ci ay efforts waaw parce que am na régime bi fi jàll boo gisee ñi ñu sanctionné leen yooyu moo tax kon nag ñii ñu fi ñëw ñu ñuy def mooy appel lañ leen mën a lancer ñu mën a góorgóorlu ci loolu gin cee bàyyi xel na xam ne kat Euh, élection yi ñu ngi ñëw xëy na duñ ci sori sax waaye dañ leen di wax ne leen nit ki naat soo demee ba bu ko di ko laaj baatam day fekk nga am foo ko taxaw kon nag ñun ñu ngi leen di oo pour ñu ñëw taxawuñu ci mbirum inondation Kaolack bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen waa Sénégal 7 ci seen liggéey ak seen taxawaay nekk ngeen ay benn presse bu disponible bu nekk à <coughs> euh, au besoin de la population parce que lépp luñ jafe-jafe ci askan bi yéen a ngi koy jénnee di ko wane kon loolu tamit ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal ndax Sénégal yëpp rafetlu nañ seen liggéey. maa ngi lay nuyu sëñ bi. waaw maa lay ziar waa ji. tur la. Assane Assane la ñuy wax koy wax. yow fan nga dëkk. maa ngi dëkk Ndorane Ndorane laa dëkk nii ci ginnaaw ne rek. ci côté penc mi bi kon nga xam ne da koñ yi fees nañ dal noo koy dundee waxtu bi. waaw billaay doy na waar trop sonn nañ de ku ñu dimbale ins bi moom ñu jël dëkk bi bëri na ndox nit amoo foo jaar billaay bari na ndox mooy loolu waaw gis nga kenn xamul faaxum sax moo ci rawati kenn xamul nu mel ndax mu foofu moom boo fa demee moom mooy loolu bari na trop mooy loolu ñu si jàppale daal ñu jël ndax mi mooy loolu kenn amul foo jaar ñiy génn nañ seen bagage yi mooy loolu daal dëkk bi dooy na waar kenn amul foo jaar métti na de. gouvernement ah, mu jàppale nu mu jàppale nu sonn de moom. billaay sonn na man maa ngi nii yaa ma gën a xam gisoo samay daal damaa xuus ba kenn xamul lu may nuru barki Serigne Bamba ñu jàppale ñu jël sonn nañ de. lay sonn noonu sonn noonu trop trop xam naa ñuy mujjee gaañu rek lii laay bi sonn noonu nañu dimbala rek moom xam naa moom xool ma xool ma xool ma rek xool ma yaa ma gis damaa ko kenn xamul lu may nuróo ah ñu dimbala rek sonn nañ de laay dinañ dee ñun dinañ xuus ba ñu yàlla bu ñu réer ci ndox mi sax laay wax parce que démb fii benn meer ci ndox mi fee la ñu koy wër lii xam nga ne lii. gisu ko nuñ koy gisee ndox mee bari ndox mee bari kenn du ko gis man maa ngi nii gisoo merci baax